wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri man asalaamaaleykum mbokki marché ambulant yi mbokki marché yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la Alaaji Fall di soññu ci mbale bi nga xam ne moo war a am marché Ocass euh, ñu commencé ko alxemes muy jeexe ajuma maanaam tëjub ñaari fan lay doon mais nag àllarba lay tàmbali àllarba ci ngoon képp koo xam ne am nga bagage ci marché bi fépp foo xam ne béykat yi na nga ko jël teg ko fu wóor foo xamante ne nii bu ñuy balee du mën a empêcher ñuy bale ndax buñ balee ba pare ajjuma incha allah dañoo bëgg a pompe lépp loo xam ne moo wër marché Ocass ak lépp loo xamante ni nii ci marché bi la féete kon ñi ngi soñu ñëpp di leen wax ne alarba ci ngoon bu fi kenn bàyyi benn bagage alxames dañuy xëy bale ajjuma dañuy pomp ñaari fan dañ koy fermer. asalaamaaleykum man la Modou Gueye jiite seen commerçant yi maa ngi leen di xamal ne alxames marché bi day tëj ak ajjuma alxames la ñuy bale la ñuy pompe marché bi day fermer. ku fi am bagage ci euh, yoon wi ñu ngi lay ñaan ngir yàlla nga jël ko ba doo yàqal kenn samedi bu soobee yàlla buñ xëyee mën a reprendre. ci turu Baye Mbaye Sarr mi nga xam ne moo jiite tailleur yi nekk ci marché bi yëpp. ñoo ngi leen di fàttali ndigal li nga xam ne dafa jóge sëñ bi ñu war a bale marché bi alxemes ak ajuma yéen centre commercial yi ak yéen téer yi nekk ci biir marché bi ñoo ngi leen di soññi ba alxemesee yéen ñëpp ngeen xëy ñu génne mbalit mépp yóbbu ko ci kees yi nu war a teg mbalit mi ah ñu bale marché bi ajuma buñ xëyee ànd ak euh, ñu xëy balewaat ñu pomp ko boo samedi bu ñu xëyee delluwaat suñu liggéey. Baye Alla conseiller municipal ci commune de Touba Mosquée membre commission de l'environnement du cadre de vie développement participatif et de la planification ci njiitul euh, Serigne Abdou Lahad Gaynde Fatma mi nga xam ni adjoint au maire la di ministre conseiller jiite commission boobule waane lépp nag ci turu le maire de la commune de Touba Serigne Abdou Lahad Ka ak bureau municipal bi yëpp ak conseillers municipaux yëpp. Euh, di soññ rek ci yéene bu mag bi nga xam ni am nañu ko ci ndigalul sëriñ Muntaxa ak njàppaleem nag euh, muy marché Ocass bii nga xam ni ni ma ko waxee sànq c'est-à-dire mooy marché bi ëpp ci Touba wande ku xam Touba ak marché bi xam ni gox la wala marché la bu nga xam ni Sénégal gépp mën nañu ni fi la ñuy dugg see waa Saalum fi la ñuy ñëw waa Bawol fi la ñuy ñëw waa Njaambur bu ñu xëyee fi lañ jëm si Kajoor fi lañ daw di ñëw si Sénégal gépp fi la ñuy dugg see mu doon marché bu nga xam ni kon ci jamono jii ñu toll ci contexte bi nga xam ni tawat ji ñuy wax coronavirus dafa lëmbee. àdduna bi du ma ni Sénégal wande na it mu mel ni fii ci Sénégal dugg na ci suñu dëkk bi duggin wu nga xam ni euh, bu ñu ci jëlul ay matukaay ak pàgguteef euh, yal nañu yàlla doole dimbali taxawuñ ci baaxuk sëriñ bi wande euh, tiital na tiital na tiital na doomu aadama yëpp kon loolu moo tax yéene am ñu lëkkaloo ko moom commune de Touba Mosquée wande àndante ko ak Touba ca kanam ci njiitul sëriñ Abibu ak ñi mu àndal ñëpp yàlla na ko yàlla dolli taxawaay dolli leen a dimbali dolli leen a gunge ci seen biir yéene bu rëy bi ñu am lépp ci ndigalu sëriñ Muntaxa mooy jàppale lépp lu yittee dëkk bi rek Touba ca kanam ma nga cay taxaw wande àndante ko ñi ko war a àndal yëpp mooy commune de Touba Mosquée noonu ma la ko waxee wande ak UCG UCG nga xam ni mooy kuréel gi nga xam ni mooy euh, euh, taxaw lépp lu nga xam ni set la ak setal di saytu mbalit mi fii office de l'état nekk ci dëkk bi yore fi logistique wala yore fi ay nit ñu nga ak service d'hygiène bëgg seetal marché Ocass bii ni ma ko waxee ci contexte bi ñu nekk wala nag ñu bëgg ko defee ci anam yu nga xam ne dafa dëppoo ak mesure de sécurité yi nga xam ne loolu la ñu nañu nañu ko defee loolu mooy lan fexe ba jaxasoo bi bu mu bëri fexe ba ñu liggéey ci efficacité c'est-à-dire am logistique bu tegee ci yoon ñu teg ko mooy bac yi nga xam ne UCG am nañ ko bu àllarbaa ci guddi danañ ko teg ci marché bi li ko wër lépp wande bu alxames baa nag ñu sàkku ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché ocas moo xam commerçant yi la moo xam ambulant la moo xam ña nekk ca marché Lugum la marché Fëgg Jaay ña nekk ca tailleur ya waa ACIS ñi ngi fi. yéen waa marché ocas ñun waa ACIS section Touba président Galas mooy wax ak yéen feggoo ak coordonnateur am Serigne Pape Ndiaye. ngi leen xamal ne mooy dañoo am objectif ngir bale marché Ocass ci alxames yi ñun commerçant yi ñu àndandoo bale ko kon nag ñoo ngi ciy woo commerçant yëpp bu ñu xëyee alxames kenn ko ubbi na nga bale sa place génne mbalit mi yóbbu ko ci bag yi nga xamante ni moom la fi waa commune waa commune bi indi. ajuma jaa nag ñoo ngi ñaan commerçant yëpp ñu toog seen kër ngir waa commune bi ci boppam ak waa ECC dañoo war a ñëw set li mbalit mi bam mu set wécci ñu ànd koog waa Touba ca kanam ñu ngir ñu euh, dëkk bi ak ak poudre ko marché bi bépp kon samedi ñu doog a xëy si. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi euh, Fallou Ndiaye Touba ca kanam euh, mbokk yi ñu ngi woo mbooleem taalibe yi Sëriñ Touba yi rawatina ñi nga xam ne ñoo dëkkee fii ci dëkk bi. ci lii nga xam ne sëñ bi joxe na ko ndigal muy jëfandikoo sabab yi te wakkeerlu ci yàlla eh, jëfandikoo sabab bi nag dara jiituwu ci ak set ngir ñu fas yéene fee jëlee feebar bi di Covid 19. Eh, loolu nag tax na Touba ca kanam jël ci ay matukaay yu am solo xam ngeen ne yëkkati nañ ñeent fukki million ak juróom jëndee ko lépp ay produits yoo xam ne ngir xeex jàngoro ji la tasaare ko ci dëkk bi ci daaray alxuraan yi. ci jumaa yi ci jàkka yi ci bërëbu fajukaay yi ak fépp foo xam ne mbooloo ña nga fay daje loolu nag mbokk yi e, bokk ci ñu pompe dëkk bu sell bi di Touba ànd koog waa Service d'hygiène loolu nag mu am lu ko jiitu muy setal dëkk bi rawatina bërëb bi nga xam ne képp ku xëy ci dëkk bi fa nga jubale jëm muy marché Ocass Touba ci kanam fas yéene ànd ak mboolem autorités yi nekk ci dëkk bi moo xam mairie moo xam UCG moo xam waa marché Ocass ñu fas ne seetal dëkk bi alxamis incha allah ñuy yëgal mbokki julli yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci marché Ocass mbokki taalibe yi kenn ku ci nekk mu bàyyi ko xel àllarba suy wàcc lépp loo xam ne lu mu fa war a jëlee la mu jëlee fa bu alxamis yi incha allah dinañ nettoyer marché bi ba mu set ànd koog waa marché bi su ko defee Saint-Vigile daal koy pompe ngir ñu fas yéene ànd xeex jàngoro ji nga xam ne li ko fi jëlee li si jiitu dara weesu ci ak set buñ ne set nag. set ci sa jëmm waaye set ci bërëb bi nga xam ne fi nga nekk kon nañ leen ànd setal dëkk bi jëfandikoo li nga xam ne sëñ bi moom la wax ñaan yàlla feebar bi yàlla nañ ko daan jëlee ko fi waaye it mu jóge ci àdduna bépp ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf